li ñu fekkee tey muy euh, atelier training bu forum euh, du premier emploi lu am solo la te luy wane yéene euh, waa MEDES ak seen président Mbagnick jóg ndaxte wax dëgg yàlla dajale ay ndaw ngir ñu janook ñoo xam ne mën nañ leen jël liggéey loo leen rek lu rëy la waaye boo ci boolee it nga jël temps jël espace jël ay formateurs ngir ñu mën leen a Euh, encadré tàggat leen ba bu ñu janook ñoom it ñu xam la la ñuy wax xam naka la ñu war a nekkee naka la ñu war a taxawee ba ñu wóolu leen am ci ñoom yaakaar bu mën leen jël loolu tamit lu am solo donc ñu ngi ciy félicité bu baax MEDES ndaxte taxawaay bu mel nii lañu ñu war a am ci ndaw yi xiirtal leen ci lu baax wan leen yoon ba ñoom it ñu mën a jëriñu te jëriñ seen réew.